ndaysaan mi ngi noonu mbokk internet yaa ngi ñu ngi leen nuyu di leen ziar premier combat ci biir géew bi dox si diggante Papa Yade bu ndaw ak premier combat ba nekk noonu ñaari mbër yaa noonu di léewtoo ndaysaan tey nekk dimanche 26 mai 2024 journée Yaram Art waaye grand combat bi nee naa la mi ngi dox Gris 2 ak doomu dangu yéen a ngi am premier ci biir géew ku dox si diggante junior ak Papa Yada bu ndaw Papa Yada bu ndaw moo ngi moo mu li wax moo junior moo féete ndeyjoor attention ñu Eh, ñaari xale yaa ngay lewtoo ñu nga dem ci côté saako ya at bi woo leen ci biir bi at bi nee silo waatee da nga taxaw benn place bu ne ah at bi silo waatee génn seen diggante diggante réparé réparé senior ak Papa Yada ñaari xale yaa ngi noonu attention ñu ngi lewtoo réparé def na déplacement latéral Papa Yada mi ko fixé noonu attention Papa Yade lu mu daa bëgg a song wala attention réparé tout sa ko léegi ñaari mbër yaa noonu ndeysaan attention réparé senior ak Papa Yade Papa Yade bi muy dox ci kawam réparé avertissement ba di avertissement. waaw réparé jël na benn avertissement ndax na ko tëngu nangu taxaw bëree attention at la wax na génn seen diggante réparé junior Papa Yade ñu ngi noonu ndeysaan attention Papa Yade ngay dox ci kawam attention la moo nar a xew Papa Yade mi ngi dox ci kawam attention tuuti na ko. toujours na ko ñoom ñaar ñi ngay xeex eh, réparé dóor na Papa Yade eh, Papa Yade ngi dox ci kawam attention daw na jël ko doon na ko daanu wala eh, na ko ndeysaan Papa Yade daan na ko <laughs> daan na ko waaye nii naka damay def action même chose Papa Yade Papa Yade bu ndaw a ngi noonu daan na ko jël bu amul benn wérante booba nekk premier combat ci biir géew di Papa Yade bu ndaw ak Réparé Junior jëli bu rëy na ndeysaan eh. Papa Yade ngi noonu waaye lu ma ma ngay daa mel xool VAR lan la ñuy xool ci VAR combat bi jeexagul ba léegi vaar a ngi noonu tey vaar dafa ñëw nañ xool dañu xool ba xam la la vaar di wax abi baa ngi noonu ñëw nañ xool vaar waaw vaar dina daan na ko waa leer la de jël bi leer na bu yàgg waaye li am na solo ndeysaan vaar dafa war ñëw chaque jour non ñu ngi ciy ñaax waa CNG waa CNG ñu ngi leen di ñaax ci loolu li ñuy indi VAR chaque jour c'est normal parce que lamb yi jaxasoo yi ñuy am VAR dafa war di ñëw ndeysaan